وبعد عنك ñi ngi jaajëfal ñëpp ñi participé ci daanaka point yëpp parcourir nañ am nañu dëgg yàlla yaakaar bu am solo d'abord ci wàllu santé ñoom je pense déjà disposition yëpp dinañ jaar yoon ci wàllu seen léegi également je pense que aussi engagement yi nga xam ne Senelec jël na ko rassuré nañu mais peut être il faut ñu insister pour que ñu assurer que ne vraiment il y aura pas de problème depuis Kër Momar Sarr SDE aussi bon li ñuy wax jàpp naa ne aussi xel mën na ko xel mën na ko nangu donc peut être ñu tenir compte aussi ci relevé contradictoire yi ci préoccupation yi nga xam ne yi comité bi am na ko euh, ci 12 jours la DG waxoon ngeen fixé 7 jours avant et 5 jours après ngeen définir ko ensemble ànd ci normalement bu ñu àndee wartu wala posé benn fois bi ci des je pense que SG dina ko dina ko euh, ci ci délai bi nga xam ne bi jël na ndox mi aussi si euh, terni yi am naa yaakaar ne dina doy là aussi peut-être euh, ñu tenir compte ci seen préoccupation ci ci qualité ndox mi war a génn ci bâche pour pour que mu bañ a nekk également source de source de problème bon ci wàllu sécurité moom wax dëgg yàlla suñu xel dal na ci comme li ma waxoon rek invité police ak gendarmerie euh, ñu gën a lëkkaloo ci liggéey def parce que ñoo bokk ñoo bokk liggéey comme j'ai dit si c'est possible faire un seul plan de circulation présenté par la gendarmerie police mais mu nekk benn ndax nit ñi mën ko gën a comprendre mu gën a yomb ci ñoom bon ci wàllu sapeur aussi amuñ ci benn préoccupation particulière parce a foofu noonu en cas de problème xanaa ñu veillé rek ci pour d'incendie yi ñuy def ñu assuré avant le Mawlid que dana dox correctement donc ci wàllu ONAS aussi donc dégg nga xam ne moom la ONAS wax engagement yi mu jël euh, peut-être que là aussi ñu attirer attention maire bi pour que problème visuel yi jéem solution ci at yii di ñëw AGEROUTE également je pense que ñu ngi liggéey ak problème majeur jël engagement te commencé nañ yenn liggéey ci communication aussi je pense que li nga xam ne lii moom la opérateur yi jël normalement bu ñu ko defee qualité de service bi dina améliorer carrément pour internet bi comme pour téléphone bi élevage on n'a pas de préoccupation particulière commerce et aussi il n'y a pas de problème transport on va demander à l'AGEROUTE de nous aider pour le transport du bois pour que matt mi mën a jógee ci zone bi mu ne waa fii a ñëw Euh, au niveau donc de, de, de Tuaon. Pour l'environnement, là aussi, je pense qu'il n'y a pas de préoccupation particulière. Euh, donc joxe nañ autorisation yi ci waat pour que ñu mën a am matt bi correctement. Euh, ministère de UCG là aussi je pense que ça il a pas de problème DMTA bon vous donnez 2000 2016 disent qu'ils n'ont pas de VIP on note que c'est 2016 <coughs> euh, le ministère de l'intérieur va donner les bâches, les quantités demandées, 850 bâches, les laisser passer, les macarons. <coughs> La douane aussi, il a pas de problème. La sécurité alimentaire, on verra avec eux pour, pour s'assurer quand même tout sera mis en œuvre. AMO, les écoles. Donc je pense que nous avons fait le tour, wax dëgg yàlla suñu ci lii maintenant bon a quelques jours tey le 20 donc le 31 dans 9 jours ñu dajewaat Tivaouane incha allah def une évaluation xool ci juróom-ñeenti fan yi yan jéego lañ ci def euh, comme ça au moins danañu mayaat 8 <coughs> jours pour rectifier éventuellement wala yokkaat suñu loxo pour mën ci yegg ak ak jàmm donc sëriñ bi daal mel na nii daal mi demee na ni ñu ko bëggee en tout cas kontaan loolu de lu yónnee waa nuyu ci sëriñ bi ci wàllu fourniture en